wala tafarraqu defe naa man damaa jàngul nag su ay araf yi dëngee rek ngeen dimbali ma jubbanti ko ci seen xel mu rafet ñoom suñ fàllu gi nañ ci jàpp bu baax a baax mu mel ni ndigal loolu bi ñu ko alxuraan joxe tey alxuraan andil nañu ñoo xam ni ñooy sunu roy waay ngir ñu war leen a mën a roy ci ànd gi ñu war a ànd ab murit sëñ Saliou wax na ni fileeg yeggul ci gisee mbokk taalibeem jàpp ni sëñ Tuubaa la gis nekkagul ab murit saadix sëñ Moussa wax loolu ni ma ab fii léegi yeggagul ci seeni mbokk taalibeem jàpp ne sëñ tubaa ngi nii di ñëw maanaam waxin la mooy weger gi nga war a weger sëñ tubaa ak cër bi nga war a jox sëñ tubaa kenn ku ne si ñun teral gi ñu lay teral sëñ tubaa képp a tax surluwaa ak demam gii wolof na saaram te kon billaahi ñëpp dem nii daan lii la sëñ Moussa Ka wax bu dul sëñ tubaa ay Jean Paul Diaz ak Jean Paul Luc la ñuy doon ak ay Marie Thérèse mari Marie Lopez yal na yàlla yërëm ñëpp nag waaye kon sëriñ la ñu dimbali ndimbal gogum ñu dimbali nak am na ñoo am ñoo xamni ñoy suñu référence xolal amna ben sahabu ñu Abu Zar Abu Zar ak bi dañ ko war netali nettali murid yëpp di ko dafa am ñaari sahaba yo xamni jamono sayyidna umar ibn al-khattab ben sahaba bi di xuloog benen sahaba bi domi yi di jël xeer da benn sahaba bi jël xeer sànni ko mu dal ci sen papa ñaari xale yi taxawoon mu dal ci seen papa sunu borom def ko muy sabab waji daanu melni ko faatu deg nga ñu daal di porte plainte waa ji yóbbu ko ci Seydina Omar ibn Khattab Seydina Omar ni waa ji kii de nee na yaa rey papaam mu ne ko waaw maa ko rey man du ma fen ab jullit laa mu ne ko lu tax nga rey ko mu ne ko bi ma koy rey foo ko jubluwu moon rey ko dañoo xuloo ma ak moom ma sëgg for ab xeer sànni ko mu xeer bi dal ko rek mu daanu dee waaye xeer bu ndaw laa ko sànni Umar ni ko waaye xam nga ne yaa ko rey mu ne ko maa ko rey Umar ni ko xam nga lu charia wax ci ku rey nit mu ne ko waaw mu ne ko dañ lay rey mu ko pare naa ñu ni kon bismillah xam nga procès bi jeex na waa ji daal ni naa Omar xel nañ moo rey mu ne ko suba ci tàkkusaan mu ne ko ndax mën nga maa may ma dellu sama dëkk bi may jógee damaa bàyyi sama soxna mu am tuut tànk te ngeen déggunu ko saa borom dogalit ba may dem dénk ma ko kenn di xam nga ne arab yi bu fekkee dénk na yow sa njaboot mën nañ ko faa bàyyi mu sonn damaa bëggoon nga may ma ma dellu sama village su ma demee jël samay mbokk wala samay xarit yi ma yaakaar dénk leen sama doom ak sama jabar dikkaat nga rey ma Seydina Omar daal di ni ko waa yow loolu yow ñu war laa rey nga naan ma naa la bàyyi nga ne fanaani sa kër ñëwaat loolu est-ce que yéen yéen saaba xel dana ko nangu Abu Zar yëkkati loxoom ni ko maa ko garanti ni Seydina bindal sama tur mu dem su fekkee dem na bu ñëwul nga rey ma Abu bokk na ci fukk yi salaa salaam wax ni ko yéen àjjanaay seen kër am na ridwanullahil akbar dem na Badar dem na Uhud dem na Xandak am grade yëpp nga xam ne Badar ku ba ñëw rek mënuloo def safara Badar bakaar ku fa dem ba dik munu ko def safan wala yobu sawara lo loo di ci bàkkaar dara ye badar da koy ba aljana ga jëm motax tax ibnu belta bu mu defee jëfam joojee salaa salmi seydina omar bàyyi ko ki munu ko def lu ko yobu sawara abu zar yegati loxom ni sayyid amar ma garanti waji sayyid amar omar ni ko abu zar xam nga ma man jëfé sharia daf ma jaral sax bakkan te may amirul muminin te yow xam nga ni ku rëy nga ci l'islam te suma ma la rayee coow dana am ci dëkk bi Abu saar ni jullit ñi maa ko garanti nañ ma rey su ñëwul daan di waa ji bind leen sama tur ñu bind turam mu ni waa ji demal naa man ni bisimilah lii sariya nangu na ko ñu daal di bàyyi waa ji mu dem. bi waa ji demee dëkkam suba ci ba midi gisuñu waa ji ñu waajal préparé bureau yu ñëw ñu takk affaire yi pour waajal rey maanaam Abu Zar Abu Zar takk ñu takk ko ab Seydina ma ne ko dama lay rey de ndax man yaa ko garanti lii sariya dama koy jëfe Abu Zar ni ko rey ma. ko jagat-jagatee ba dëgmal fi ñu ko war a reyee ñu seen benn fas wi daw di ñëw muy waaja di rëppatal fas wi naan taxaw leen maa ngi ñëw taxaw leen maa ngi ñëw bu leen ko rey taxaw leen bi muy egsi fekk Abuzar mi ngi yéeg ci kaw fi ñu ko war a reyee ñu wàccewaat Abuzar waa ji taxaw yéeg ba ci kaw saaba yëpp di jooy saaba yëpp di jooy ki nga xam ni moom moo pootoon plainte waa ji daa ni Seydina Omar taxawal dama bëgg nga laajal ma waa ji dee ni mu méttee mu dem ñu bàyyi ko kenn gardé ko ndax wóolu ko mu dem ba dëkkam lan moo tax mu dëkkaat saaw bi ni ko damaa rus ëllëg yoomal xiyaam ñi dekk si kanamu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko sama xeet yow yaa fi njëkk a worom loolu laa xalaat ma ni man dee jarul ma lii moo tax ma dikkaat Seydina Omar ni Abu saar lan moo tax yow nga xam man su waa ji dikkul dama lay rey nga garanti ko mu ni ko damaa rus ëllëg yoomal qiyaam ci kanamu sallallahu alayhi wa sallam ma dekki ñu naan ma yaa njëkk xool sa mbokk julli bu ne ci tolof tolof nga seetaan ko te ci kóllëre laay bañ ndax jul ina man mu noonu walaa jàngoon sama sang bi wax ko kii sama mbokk la si sa Abu Zarr ne ko waa léegi Umar moo tax su waa ji dikkulool nga rey ma mu ni ko damaa bañ dekki si kanamu rasulullahi mu ni ko sama sharia gi sama yoon yu ma tëral yaa ko njëkk a salam faañee ka porte plainte ni Seydina Omar ne ko déet mu ne ko jéggal naa ko ci xol bu sedd guy mu ne loolu la ngaa baal ko mu ko damaa bañ ëllëg yomal xiyam salaa dékki ñu ne ko sa xeer bi kii moo fi njëkk a ñàkk yërmande xoolal xoolal parce que su Abu Zahab sauvé na ñëpp roy yooyu yaa ngoog dalil yaa ngoog keroog xare mu tadda xare mu tadda jaafaru sadiq bi muy faatu Zubayr da koo raam di ko jox ndox ndax booba jaafar dafa mar ba tëdd say ndax xare bi métti na ñu jam ko mu blessé dina mbokk juritam raam jox ko ndox pour mu naan mu daal di gëstu Zayd ibn Haris raam ba ci Zayd fekk Zayd moom tamit mi ngi blessé mu jox ko ndox mi ni ko naanal yaa ma gën a yoon naan ndax yow danga bëgg yàlla ñoom ñaar ñuy jeexante ndox yi ba ñoom ñaar ñoom ñu faatu muhammadu rasulullah walazina maa ashaddu alal kufaar kon sahaaba yaa ngoog waaye léegi ñun nag ñun kon fan la ñu war a ne ñun nan la war a mel ñooñu suñuy wujj ñun gaañi ñuy wax duñu suñu problème bi fële la sahaaba yi la war a tëj bët rëppatal topp leen tekk ndax sëñ Tuubaa kat dafa wax ni saaba yi ñooy seen wujj ci lislaam saaba yi ñooy seen baay ci diine sëñ Abdu Lahat ñu koy leeral mu leer nañ sëñ Abdu Lahat na li ko jaaxal mooy koo xam ni def nga sëñ Tuubaa ni saaba yi defoon rasulullaay sëñ Tuubaa defal la li rasulullaay defaroon saaba yi lii sëñ Abdu Lahat moo ñu ko wax kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi nañu bëggante nanu jàppante nanu bendoo mënuñoo nag bëggante gi yem ci làmmiñ ba noppi suñu xol yi dundul bëggante loolu naafeq rek la ndax naafeq dafa am ay façon dafa am naafeq bu mag ak naafeq bu ndaw naafeq bu mag bi naafeq bu ndaw bi mooy naafeq bi nga xam ni dafay dem kër sëñ sëñ Ndiaye Gueye ni ko sëñ Badu nee na la sàngam jóge ci sëñ Badu ni sëñ Ndiaye Gueye de moom li ma wax démb di fekk loolu rambaaja loolu naafeq bu ndaw la naafeq bu mag nag mooy may reetaan sëñ Ablaye sëñ Ablaye Ndiaye wala may reetaan sëñ Matar Thiam naan ko sëñ bi yaa baax yow fekk sama xol mu ngi naan kii maa ko bañ waji ji ngistal rek la bëgg ak bëgg dara ja ki tour rek ki foko fekk rek mom pour mom mom dal mo gën nit ñi lolu sa xol diko wax ba nopi sa xol sa lamine diko contredire ngay wax ce qui est contraire à li nekk sa biir sa bo sa lamine woré sa xol ci wax dëgg naa fekk nga kon ñun mourid mënu ñu di jàng xasida yi ba nopi te duñu bëggante ku la bañ sëñ sa touré moo ma waxoon ni ma Omar kay mo wax la lo xam ne samay mbir la man samay mbirum bop dina la ko wax tay ngir nga jëriñu daan ni ma koo xam ni dangaa saytu gëstu ba mu wóor ni moo la gën a bañ ko bëgg bëgg koo xam ni saa boo bala ngay ñaanal sa bopp na ko ñaanal jot na